asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di bu baax baax fii ci Rewmi Sport àllarba le 28 août 2024 ñëw ci revue de presse bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkk nga abonné partage lii di vidéo bi c'est important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi pour jàllale chaîne bi aussi mën ngeen woo ci numéro yooyu ci suuf disponible sur les plateformes mu ñëw ci revue de presse yi revue de presse dañ koy di commencé fële ca biir euh, donc journal bi di réew mi quotidien euh, dikk na ci Iliman Ndiaye doomu Sénégal bi démb euh, ci li nga xam ne moom mooy talaata gi ci la def première titulaire am ci club boobu di Everton ci match 32e de finale lii di Carabao Cup wala League Cup ba tey kii di Iliman Ndiaye face ak kii di Doncaster Rovers mu daal di marqué li nga xam ne moom mooy première bi am dugal deuxième bi bi nga xam ne Everton dugal na ko. dafa toon jàpp équipe bi nga xam ne moom mooy Doncaster di benn club bu nekk troisième division championnat wa Angleterre fëgg ko ko fëgg yu métti lu toll ci donc 3 euh, bi à 0 kon ki nga xam ne moom mooy Iliman Ndiaye dèjà marqué na xam ne moom mooy première titularisation ci équipe boobu nga xam ne moom mooy Everton après journal boobu di réew bi quotidien dañuy dem na ci ki nga xam ne moom gaañu Boulaye Dia ñi ngi am yaakaar ne ginnaaw suba euh, Aliou Cissé dina ko woo ci équipe nationale bu Sénégal ci fàttali ki nga xam ne moom mooy Boulaye ja mi ngi gëj ci équipe nationale bu Sénégal depuis le 26 mars 2024 euh, match Sénégal Bénin ba tey donc dikkul ci équipe nationale bi donc bientôt 4 mois euh, ba jëpp même 5 mois donc kii di euh, Boulaye Dia depuis le 28 mars 2023 contre Mozambique marqué wul ab bii ci mooy équipe nationale bu Sénégal donc ñu ngi xaarandi li nga xam ne mooy retouram ci équipe nationale bu Sénégal après des mois d' absence moom kii di Boulaye Dia. après donc foofu ci Sénégal dañuy jubali fa li nga xam ne moom mooy ci Angleterre Mirror Sport la ñu koy dikk na donc ci euh, double essence marché d'échange weccoo gi nga xam ne fi mu toll nii ñoo ngi koy waxtaanee diggante Chelsea ak Manchester United concernant ki nga xam ne moom mooy Sancho ak kii di Raheem Sterling ki nga xam ne mooy Raheem Sterling Enzo Maresca bëgg ko loolu moom nekkatul information ki nga xam ne moom mooy sanso tamit Ten Hag kontul ci moom nekkatul information. fi ñu toll nii nag Chelsea moo gën a wane ak bëgg-bëgg ci kii di sanso li ñuy xaar nekkee mooy est man que United vraiment teg na bët kii di Raheem Sterling mais lu wóor bu wóor mooy ñi ngi étudier pour une possible échange entre Manchester et Chelsea. après Mirror su suñu sport aussi dikk na ci beneen joueur boo xam ne Chelsea bëgg na ko di ki nga xam ne moom mooy Ivan Toney mi nga xam ne actuellement. Euh, Al Hilal Al Ahli euh, bu Arabie Saoudite moo ci gën a donc liif liggéey bu mucc ayib actuellement pour signé ko moo tax journal bi di suñu sport wax ne Chelsea veut détourner euh, benn transféré boo xamante si nii transfert bu mag la bu Ivan Toney en Arabie Saoudite parce que liñ tegal Ivan Toney Arabie Saoudite Chelsea mënu ko ko tegal donc ki nga xam ne moom mooy Ivan Toney fi ñu toll nii moom li mu décidé mooy rester Angleterre actuellement kon Chelsea mu ngi def ay pexe pour signer attaquant Brentford bi boobu. ba tey ci wàllum essence bi ci la ñu dikk journal bi di Star Sport mu ngi ñuy xamal ne eh, Chelsea moom bu fekkee ne ki nga xam ne moom mooy Manchester United soxlawul Sterling Chelsea donc pare na aussi pour négocier ak Manchester United pour jënd ki nga xam ne moom mooy Jadon Sancho bi nga xam ne aussi am na ci dossier boobu mooy que kii di Juve eh, candidat la pour signe ki nga xam ne moom mooy sanso waaye Juve donc moom ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee Chelsea ñoom ñooy concurrent pour signer ki nga xam ne moom mooy kii di Sancho. même bu fekkee ne Jadon Sancho dem na Chelsea Juve am nañu yaakaar ne dina dugg ci la transfert de kii di Raheem parce que boole woon na ko ci liste de joueurs yi kon ñoom ñaar daal ci dernier jour mercato yi feek vendredi jàpp samedi dinañu quitter donc normalement seen équipe respective après Angleterre dañuy jubali fa nga xam ne mooy ci Espagne ci journal bi nga xam ne moom ñu tuddee Marca dikk na ci ko ci FC Barcelone ki nga xam ne ñoom démb la ñu fekk ji woon équipe bi di Rayo Vallecano bu Patrice ak James Rodriguez Barcelone donc daal di gagné lu toll ci 2-1 kii di Dani Olmo daal di jouer premier match moo tax euh, kii di Marca di ñu wax ne début donc exceptionnel pour ki nga xam ne moom mooy Dani Olmo première match am donc mu def li nga xam ne moom moo tax Barcelone dépensé ci moom 60 millions euh, premier match euh, première bi pour la numéro vingt kon FC Barcelone mu ngi continuer ci dynamique bu baax bi mu nekk ci Liga bi. dañuy continuer ba tey euh, foofu ci biir Madrid wax sonal bi di as dikk na ci numéro 27 numéro 7 di kii di euh, Vinicius Junior Vinicius Junior nee na li mu bëgg mooy doon légende euh, ci Madrid nee na nag ñëpp mënuñoo doon ay légende ci club bu mag bu tëddee Madrid mais moom loolu la bëgg nee na bëgg naa jouer ay at yu bëree bëri ci club boobu di Madrid nee aussi euh, xaalis tiitalu ko euh, fi mu toll nii li mu bëgg mooy rester à Madrid malgré xaalis bi ko fay Arabie Saoudite lépp euh, Vinicius Junior contrat am ak Real Madrid 2027 la war a jeex Vinicius Junior aussi am na clause libératoire de 1 milliard donc ki nga xam ne mooy Vinicius Junior waaye ne dafa bëgg a continuer bëgg a doon une légende de cette après donc journal boobu di euh, Marca ak euh, AS dañuy jubali fële ca biir Barcelone fekk fa journal bi di euh, su sport nee na début spectaculaire spectaculaire pour ki nga xam ne moom mooy Dani Olmo début bu mucc ayib bu donc rëy kii di Dani Olmo amal foofu ci FC Barcelone démb contre kii di Rayo Vallecano après bi nga xam ne premier mi-temps très difficile du côté des Blaugrana mais avec donc li nga xam ne moom lii di remplacement remplaçant yi euh, kii di FC Barcelone mujj na fexe ba lii di gagné lii di match bi contre kii di Rayo Vallecano avec donc cette victoire ba tey si loolu yi Mundo Deportivo dikk na ci FC Barcelone compte na ci ku ci demee ne Pedri euh, ku ci ki nga xam ne moom mooy euh, kii di Dani Olmo mais comme ni ko journal bi di Mundo waxee li nga xam ne moom mooy ñuul ci sew mi ci victoire bi Barcelone am moom mooy la blessure de kii di Marc Bernal donc de terrain 17 ans bi nga xam ne. Barcelone amoon na ci moom yaakaar parce que Barcelone daanaka seen effectif bi amul un milieu de terrain défensif benn équipe benn joueur la fi woon rek mu ñëw par miracle jógee à la Masia di kii di Marc Bernal mais selon les dernières informations euh, te euh, kii di euh, Marc Bernal dafa amee ligament couragé loolu nag dinañ ci am plus de confirmation tey jii nii ci àllarba gi toujours donc foofu ci biir Europe la ñuy continuer la Gazzetta dello Sport dikk na ci kii di Adrien Rabiot kii di Tammy Abraham ak kii di Manu Koné ñetti joueurs yi ñu leen limal yëpp ñooy joueurs yi nga xam ne Milan bëgg naa renforcer équipe bi ci waxtu yu mujj ci mercato bi eh, kii di eh, Milan proposé woon na Adrien Rabiot contrat bu ñaari at ñeenti at depuis ñaari weer eh, ak salaire cinq millions seize ans que lii di lii di proposition boobu noonu mi ngi valable ba tey pour kii di Adrien Rabiot kon Rabiot saa bu bëggee dem AC euh, Milan euh, du ndaxte Milan tegal na ko lii di salaire ma ak contrat am ba pare euh, continuer gaa ñi abonné partager lii di vidéo bi vraiment lu ama am solo la ci chaîne bi pour que ngeen bañ a rater benn vidéo si lii di fin wu bi ak réew mi sport Gorya de l'Esport dikk na ci kii nga xam ne mooy Cobb Ménias en wax yéen nii ma nga ci Juve pour passer yu bëree bëri di signature avec nag sa signature Thiago daanaka day daal di man def lu toll ci deux cent millions yoo xam ne dépensé nañ ko ko ci mercato bi kon léegi moom la des mu prouvé indil nañ ko bépp jour boo xamante si ni moom la demande woon moom ki nga xam ne moom mooy Cap Manuel euh, kii di Thiago Motta peut-être sauf ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Todibo mais à part tout le rest donc signé nañ foofu nga xam ne moom mooy ci biir yu fi jërë ngeen jëf.